transport doo koy xoomat bu ko takkee laa yi am nga mbégte ak contentement ñëw ànd ak yéen tukkib na nekk fii ci waa mbokk yi kan la àndal ki nga si nii mooy le promoteur de la capitale du rail ñu gën koo xam ci Sidi Diakhaté dafati na jaloore ndax tey dimanche jii dem ak le 21 avril 2019 fii ci Ndar Géej kenn dootu ko fàtte ndax dafa tëgg lamb ju rëy ci diggante Bécaye 3 ak Euro bu Louga tuddee ko nag drapeau kuñ ku gore nit ku bëgg dëkkam nit ku kan muy Ahmed Fall ay mbokk yi dañ doon coow yooyu dañuy ci ginnaaw dëgg géwél yi te xam ngeen ne Ndar Géej dëkkub Serigne Touba xam ngeen ne Ndar Géej dëkkub Serigne Babacar Sy la xam nga ne Ndar Géej gi dëkkub Lamine Koura Gueye la waa xam ne Ndar Géej gi aada cosaan fii la fekk baax gaal yaa ngi tëmb dex gi joxe suuf si neex lool car macha allah kon sii de fi ngeen di làmb neex na ànd ak seen télévision nag Prestige TV seen sepp sekk ndax ànd ak Fallou Mbengue sama cameraman l'infatigable duñ sonn mukk tant que yéen a ngi koy bëgg ñu leen koy jox waaye ci kanam tuuti mbër leen dongali ñu wan leen seen dugg si wan seen tuus wan leen seen bakk te diggante Louga la ak Ndar dara du yomb dara du nëbb Fallou toppal ma gars bu dara nëbb billahi ka da fa at mom fo xam ne yow rek yaayam Thank you. Cheikh Cheikh jox gaay ticket Cheikh dama jox la gaay ticket dama jox gaay ticket xool noonu waaw xool noonu sept ak man muy huit ak man muy huit Irba dafa mara Mambal loo def nii Mambal li nga def lan la lii ay kii la rek ay muslaay la rek ay muslaay ay muslaay la rek alaaj gande alaaj gande mu ngi fa di préparer building rek pour daan ko ci kàttanu yàlla rek lan moo leen ndar yow دار خنا سوبي دايرت سوبي دايرت تو ياني مدار من عمل راسي بمارجوب واو واو نيو مارجوب تمام تمام تمام waa ji dugg yëngal rek yëngal rek ada bolo avance Forza moo ñu wan ginnaaw nga moo nga mu lu wax premier combat de la soirée dimanche 21 avril 2019 fii ci stade Wade Wade bu Saint-Louis Serigne Diakhaté production moo ñu fi dajale drapeau ñoom ñaar ah ñoom ñaar xoolal loolu xoolal loolu Forza Forza nga potoxlu eh, Boy Niang mi nañ ko disqualifié Boy Niang bu def naan nañ ko disqualifié de nga jëpp benn bopp lan waaw Boy Niang nañ man Boy Niang mi daal jaaxal na ma jàpp rek rek déglu li doon tër rek jëm ginnaaw ah waay non bëre waay leen si li wax defal indi leen fii toog sol bu toll nii amee sal baraaya nekk ci kaw ngeen bëre bëre bu bon bi suba waxul ma leen leen lii de Fallou war naa ci alxuraan man sax ma daan la daan la daan ma xoolal force à li muy def booy ñaa moom ay kelam xam nga ko jàpp ràcc jot bopp déglu loolu la indi loolu la indi force à saa saa mu faxat yaa saa mu nooju yaa saa mu podoxlu waaye booy ñaa moom déglu la indi jot bopp bi ràcc arrière xool ko xool ko faalu xool ko waa lii du neex a ah, dëgale nag Fam jàpp dafa bàyyi motu la jàpp motu la jàpp boo koy rawoon du bàyyi xool ko xamuñu ma dara. man de wax dëgg yàlla xamatu ma lu may wax man Pape Doumbia ka reporté woon sa bopp Pape Doumbia ka reporté woon sa bopp wax dëgg yàlla da nga joxe victoire de jox na ko jox na ko forsa ah. waxoon ba waaw ba waaw moom ba waaw moom Robert ñu ngi lay nuyu. ñoo lay fay baax fer ku la jox. saakees saakees bu Louga. signature contrat dina am xeex dina am bëre ndax digal dëggal sa bopp am déet. man nekk mbër bu arrière ndam rek ndam rek incha allah ndam rek ndam rek waaw. bu fas yéene xeex wala bëre waxal loo ci nar. xeex bëre yëpp laa lépp lépp lépp waaw lépp rek indi. combat bi dina diir wala du yàgg du man du ma bëre combat bu yàgg. dóor mu daanu wéy. waaw waaw du ma daan du ma daan du ma daan. koy jox liggéey nañ si lépp pare nañ si lépp. du ma daan si lépp pare nañ. Bécaye naa la waaw maa leen di fay. xam nga ndar yaay borom. waaw loolu kañ xanaa yow yaa koy laajte wu saa nii. euro xanaa dof ba jël la. ah daa laajte wu rek. daa laajte wu. da laa xamul. wala lim dégg lim kii euro tax xam naa ne xam naa euro bi xam nga bun bun naa euro xam nga yaakaar na ni euro bi moom am na njariñ mais bu ñëwee fii duñ ko def CFA sax dañ ko def ubbi yo quoi. mais daa mobiliser na Louga gépp topp ci ginnaawam ndax da nga koo fas yéene duma ak supporter ñu bi loolu déet. waxuma loolu Louga nan la mën a mobiliser ba ñëw fekk si Ndar gën a mobiliser waa xanaa waa Ndar dañuy nelaw. xanaa xoolal tribune bi. ah waaw kon kañ boo naa ma daa mobilisé xanaa moom waxoon naa leen waxoon naa leen bu midi jotee laa la wax bu ñu ñëwee stade duñ dugg yow xoolal stade bi. mais seen combat bi day am xeex wala am xeex am déet. combat la rek lamb moom lamb la rek bu at bi suuf lee daal lu lamb ji laaj rek ñu jox ko parce que ñun entraîné nañ lépp. ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. ah booy am Bécaye 3. incha allah waaw. fële lu ne wax na ko ñun da lay duma nga wax de. ah loolu yomb na dana xam ndax damay duma wala maa koy duma. waaw Louga waaw Louga ñëpp ñu ngi lay. ñëpp ñoo doon Louga ñëpp ñoo doon. après dañuy àndam ci ñoom mais waa Bécaye 3 xale yi lu ñu wax fii est-ce que dégg nga ko. dañ koy après ñu comprendre est-ce que du supporter te ñëw. waa Louga. oro waa Louga. li nekk suuf moom li nekk suuf moom li nekk suuf moom li duggagul nekk sunu classe ñu bokkoon dem armée en 1981 du contingent 3 de la classe 81 3 muy Omar Diakhaté bokk si sunu amical boo xam ne ñoo bokkoon def suñu service ba jeexal service après 39 ans ñu formé benn amical mu tudd amical du contingent 81 3. nu nag ñuy ànd ànd nawle di def social di dem si lu nekk boo amee naqar ñu taxaw boo amee bànneex ñu taxaw. tey nga ñëw ci lambu Omar nekk seen école de travail magam organisé lamb yi toll fii di Ndar nga ñëw gis lu yëpp dem ban yëg ngeen ci oh yëg-yëg bi ma si am surtout pour magam Sidi Diakhaté boot ay rakam ànd ak ñoom ñuy liggéey Sidi Diakhaté ne koo xam ne tamit vraiment mi ngi développement si réew ñu di ko sant di ko gërëm man dama ko gën a naw ndax ku jàppale jeunes yi la. su ñu leen làmb ñu toll nii Amar li seen classe ngay ñëw toog une mobilisation waaye tamit ndar gépp génn ban yooyu ngeen am ci loolu. ah kontaan public. bon vraiment ñu ngi am kontaante sur lu Djily Diakhaté indil lu làmb ji ah, ñun ñu ñëw représenté Omar Diakhaté rakk du rakkam bokkam moom day bàyyi ñu duggandoo moom armée. donc man may président cellule bu saint louis mandal ak sama délégation bi jóge dakar ñuy thiès ñu ñëw teew ci làmb yi vraiment jeunesse saint louis yëpp kontaan nañ ci siiru jaxase ndax lii gëj na ko am donc soqali na dëkk bi vraiment ñu ngi koy gërëm dugal sant daal Braya bi daal xam naa ni gis nga xale yor na seen sañ-sañ noonu. Oh. la nuyu. Euh, maa ngi leen di fay. tur bi. man la Ablaye Fall. Ablaye tey une forte délégation laa gis nga ànd ak sama ak Ahmed Fall Braya ñëw ca Sade bu wuyu si Sidi Diakhaté. waaw normal na parce que Ahmed Fall Braya mooy ndar. Ahmed Fall Braya mooy doomu ndar bi Ahmed Fall Braya mooy Sénégal. suñ ko tuddee lamb ju mel nii bis bu mel nii délégation bii bu indi. dafa dafa ñëw rek da waaw. mais tey damaa gis ñu si ay mbokkam rek a jug ndar géej gépp a jug wuyu ko ci bisam bi waa ñu ko ñëw Thiès kaay ñëw Ndiambour ñëw kenn desul Ahmed mooy kan ba am loolu. Ahmed mooy doomu Sénégal. Ahmed mooy ki fi yàgg def lu baax. Ahmed moom mooy opérateur économique international. Ahmed moom mooy président nouvelle force économique du Sénégal. wax nga ko léegi Sénégal nga wax tous les départements du Sénégal seen ay délégation ñëw nañu. ànd ak doomu ndar doomu Louga tey jii pour def la fête gis ngeen ko tribune yi 3 heures dafa fees stade baa ngi toj lii mooy Ahmed Fall Braya. Géwal dégguma ndaysaan waaw waaw waaw ñu nga toll noonu bis du tuur borom lay tollal borom bis bee toll noonu Fallou. Nous sommes no avec le de la capital de Raï no,

ndeysaan Mouhamadou Mansour mi ngi ànd ak Ahmed Fall Braya waaye nag Ahmed Fall Braya mi ngi ànd ak si naan si ñaawul si ñëw taxaw ci kaw faafaar yi ndeysaan mi ngi ànd ak Mansour ak Sidi Diakhaté ndeysaan ñoo jox presse bi ak Sidi Diakhaté ndeysaan ñu ngi lay def ndeysaan Mbassa Mbassa borom taw ndeysaan ndeysaan lii Mbassa Mbassa oh ndeysaan lii mooy àdduna Mouhamadou Mansour ànd ak Ahmed Fall Brahim ay cër tubaarfakàlla macha allah bis bi moom duru na boromam te Hamid Fall Braya mooy borom ndar te borom ndar moom boo ko tuddeewee loo xamante ci biir ndar nii rek la mën a mel ndax tey jii sax dafa xat ndax ñu bëri bëggoon na ñëw ñëw waaye dañoo am ay empêchement waaye ñi ñi bëggoon na ñëw moo ëpp ñu ñëw tey jii ndax Hamid Fall Braya mooy borom ndar ndax koo koy doomu ndey Macky Sall di doomu Ablaye Wade comme moom bu xewlee nii rek la war a mel. ndar kenn nooy dégg cool di dégg mbëng di dégg sabar yi dégg géwél yi tradition ci nar lan loolu nga ni doomu Guet Ndar gi lañ ko tuddee doomu Guet Ndar gi daraam du yomb ndax moo moom Ndar li ko dalee doxu bala kos langue bi daal langue de barbar boo tuddee Ahmed Fall Braya mooy tudd nga Ndar moo moom Ndar ndax kii moo jugoon Macky Sall téye ko ci loxo jugoon Abdoulaye xam ni loolu yombut kooku buñ ko tuddee lam nii rek la war a mën a mel ala daw me loolu ne ah soxna Seydou waaw li nga sensé ba xeebo ko. Ah, non xeebu ma ko. tur bi nan la. Ndeye Awa la madame Fall. waaw ah, koo may sensé bi. ah sensé bi moom sama chéri kooku laa ko may Baye Kaala Fall. di frère si Ahmed Fall Braya. moom laa ah, tay ndar ndar ndaw ñu riir. ah tey du yomb bu naree yomb sax dañ koy annulé combat bi la ñu annulé ba beneen yoon tey warul yomb ndax kon moo xeela Braya warul yomb. mais noo gisee làmb ji Sirou Diakhaté defal na lu neex. ah Sirou Diakhaté moom li ñu defal moom dafa neex làmb ji moom nii rek la mën a mel ndax bu fekk koo xamante ni moom moom ndar mu jël làmb ji tuuti ko ñu ciy kontaan loolu ndax am na dafa nekk suñu jëkkër joo xam ne dafa baax ay mbokkam te loolu lañ loolu lañ si moom daal moo tax affaire bi war a mën a réussir rek kontaan nañ ci moom trop. di ñooy am sama sondu amee Fall Braye. yéen a ko indi. waaw ñoo ànd ak moom. waaw di nga indi sa ji. macha allah neex a trop parce que Ameth Fall Braya moom lépp luñ ko tuddee rek day neex. neex rek parce que moo ko wane borom mooy nekk nit ku baax laa biir waaw yaa ma gën a xam ba ñun ñii xale ñu bëggee ko suñu bopp di ànd ak moom fépp fu ñu woo wut. ndar bien sûr dañ koy seetaan dañ koy vivre parce que boo xoolee lii rek war na war nga xam ne ñu ngi koy dund. kan mooy seen mbër yéen. kan mooy suñu mbër tey. laajte bi. mais mooy suñu mbër mooy génn neex ak si neex mi neex ak seex moo dëkk Gendar ñun waa Gendar la suñu mbokk noo faral seex ak neex yàlla la yàlla may ndam ndam gi yëpp ñëw Gendar. waa Géol waa Géol. waa Géol. Gendar yee Gendar yee 100 pour 100 la. li amul Géol. ma ne la sax ndigal. ñoom ñaar ndaysaan diggante Onde le Fou ak Rastas at bi jox na avertissement Onde le Fou sotti benn yëngare ndaysaan stade bi de stade bi de Fallou ñoo ma ne mooy ànd dongay mbeyan luloy cigil noxondo lofu a raskas nongoy lewo toña ñaar waaw waaw ndax ren i lambe neex na nilo a rerew mino ñoxo no ond lo fu dam no TV la première chaîne télévision régionale de la de Thiès ñu jaajëfal le PDG Pape Doumbia Adama ba maanaam section monteuse bi eh ànd na fi am na fi na caxabal da koy xatar benn de teq na ko mu dëpp ngoy dàq plaqué bëree ñoom ñaar action da nga koy àggale action da nga koy àggale non kan appui amul bëree ànd na fu ras ras xale yi sànni bëri nañu waa Ambulance bu xanaa daa sonn ñu ngi ñu jàpp de biir baa ngi ñu ko ko wàcc ñoom ñaar fii ci Ndar moo tax ca saay oh seen télé bi yéex naa ñëw précise léegi dara ëmbootul avertissement Ambulance avertissement Raskas ak bi sifle wax na génn seen diggante ñoom ñaar ndaa yaa ngi toj bu teel yaa ngi jeex Yang jaa ngay riir oh andu la fu raskas andu la fu raskas andu la fu sunu ndajoor raskas suñ càmmoñ ngeen boo ngeen bul xonk lu ñoom ñaar fi ci asad ma do wad wad wad bu salu international le 21 avril 2019 Raskas ak le fou Raskas sax am na lu doon tontu waaye surtout Raskas sax na ca ngemb la bon sës dam na yëg ko ak le fou raf na ko taxabal raf na ko taxabal ñoom ñaar Raskas da koy xaram déet dëgg na ko mbot am le fou dëgg na ko mbot ñu wàcc. André Fouta daan na dënd ba la teg André Fouta daan na Raskas astafurlah naa tey arbitre waxagul dara lu ma gis laa wax arbitre yaa ngay concerné wu arbitre yaa ngay daan na ñu dem Fallou ci tribune bi. Tay Sidi à travers le monde rek ñëpp di la seetaan say mbokk yëpp ñëpp yëg-yëg bi waaw am kontaan rek ndax ndar ku ko xam xam ni dëkku cosaanu mbër la ko xam dëkku culture la kon tey bu Sidi Diakhaté delloo soo làmb ci ndar tourné ma ko du ma dem lu mu bëcc. li nga lebal ndar ba tey jii mu mel rek. Ah, man xaw ma nu mu koy Wow, sax lan la. waaw may mbokk ñëpp su ma wootee ñëpp jóg tey wane na ko tey kenn des ko tey boo demoon biir ndar da nga xam ni ndar yëpp a ngi ci stade loolu nag xëy na lu ma leen labal la waaye xëy na tam ci juddu bi la ndax dama judd fi ma war a juddoo yaroo fi ma war a yaroo màgge fi ma war a màgge waaye nag bàyyiwuma samay mbokk kon su ma waral li tey mais bis dama cee gis aada gis ci cosaan ndax loolu da nga koo fonkoon ba. waaw xam nga nit bu amulee sama cosaan fonk fu ma jógee ñun gëccu ndar mool lañu lu ñu euh, sport de privilège kon tey bu fekkee dañ ma tëggal làmb fii ci ndar. du ma def lu dul kontaan rek dellu naa daal dellu naa daal jëru xob. mais sa diggante ak Sidi ndax bis bi toll nii ñi ko bëgg dañoo bari Thiès Bawol Kajoor ñi ko soxla ñëpp soxla mu ñëw ba Ndar sampal loxo ko fi génn say mbokk. loolu lan la Sidi samay relation moom c'est des relations personnelles de respect de considération Sidi xam li may liggéey ci Sénégal Sidi xam li may liggéey ci Afrique mu ma dama lay tuddee bés mais tey ñëpp a kontaan. kontaan naa lool wax dëgg yàlla ci moom nee naa ko nag nañu préparer de grands combats en vue ndax bis bi la ñu ñu sant la Thiès mu déplacé loolu nga ñëw Thiès. ah jaral na ma ko kii di lu ma woo moo fekk kon pare naa pour loolu. ndax daal dellu na am borom tey. dellu na am borom. Sanes maa ngi lay pourtant yow yaa ko jàppale ba mu am lii. ah waaw xam nga looloo ñu war looloo ñu war parce que nit ki bu la sagalee amoo fayam te kii daf maa sagal nangu ma dara ñëw ma sama benn morom xool ma nii rek waaw loolu la kon nag bu fekkee système bi ñu def ñu ko sant di ko gërëm wax la ne lii li ci kanam moo raw waaw kontaan nañ trop di sant ñëpp nag di gërëm ñëpp. ndax tey bi nga ñëwee di sant si sëriñ bi kilifa yëpp toog. moom mu moom ko di sa borom kër ngeen bokk ko yow ñaar lan ngeen lebal waa Ndar ba loolu ko ah moom xam nga Ndar rek moo ko moom loo wax mu ne Ndar dara ko ñor Ndar la bëgg Ndar Ndar dañ ko delloo njukkal waaye moom Ndar rek lay lay nooyee Ndar la Ndar dañ ko delloo njukkal rek waaw ah, merci. naar ñu ngi lay koy bu baax a baax. tey Sidy def lu rëy. tuddee Amar Fall Bra yaay sa mbokk waaye nga def une forte délégation ñëw ak jàpp ci bis bi ñëw toog lëngoo euh, boobu déjà lu ma ko waxee léegi Amar Fall sama mag la su wootee damay ñëw su ma yónnee sax ma dem parce rakk la ma def ma def ko mag ñu bokk ndar ndar rek tax jóg ndax tax tax muy mën a sacrifié wu donc loolu rek doy na ma ak barke. boole gi nag si bi organisé lu mel nii loo xam ne gën ñu am ndar donc moom dañ koy delloo njëkkal te remercier ñi nga xam ne mu ngi dundal làmb bi waxuma sax à l'échelle nationale waaye tey jii ndar gi làmb dund na fi te boo gisee ndaw yi nga xam ni mbër mbirum làmb mbirum mbër dañu bëgg def seen profession mu wutalee licence ñu am ko wutaleen ay équipement ñu yore ko dafay pousse ñu gën leen pousse pour ñu gëna djublu ci lamb yi def ko profession dekk la lamb ndar parce que ndar yàgg na yàgg do na am ay mbeur yu mag wa gëj na am mais buñ gisee nouvelle génération bi nga xamni ni nañu pour top yoon bobu le am ñu ko yombal ko mel ne Sëriñ Jaxate ñu da ngeen kontaan bu baax a baax rawatina ak Ameth Fall bi nga xamni mo moom wara journée bi dox li man daf ñuy gën jox courage ñu gëna jappalante jappal jàppal askan bi parce que dara tax ñoo jox ko jappal askan bi ku é nekk côté bu nga bëgg a yëngatoo ndaw yi di bëgg a yëngatu ci lamb wala ci sport ñun en tant que responsable en tant que autorité ñu mën a def mooy jàppale leen accompagner leen vraiment ma kontaan bu parce que mu gën ci lamb 2014 ba léegi sama tànk tegul ci lamb tey jii la dugal ci lamb ñu ko waral sama mag Ahmed Fall Baraya ak nit ku baax yi Serigne Diakhaté. waaw Serigne félicitation d'abord. fekk maa ngi lay gërëm di la sant di gërëm groupe Prestige. di gërëm Dakar Actu di gërëm ñëpp ñoo xam ne tey ñoo nañu fii mais surtout di gërëm suma xarit suma doomu ndey Youssou Ndour ci li nga xam ne tey dafa jël télévision bi ñu yóbbu leen ndar ñu war a ñu def lamb ji en direct bu ñu jógee jongante ñu koy defawaat fii ñu toog ni en direct mu doon loo xam ne seet suma xol la mais kii nga xam ne mooy ministre moom le maire sax laay wax de la ville tey mu ñëw teewe fii ci bis bi 2014 la gëj ci lamb ba tey mais lii honneur la mais nag dama lay xamal ne la moom yàgg na ma jàppale ci lamb damay tëgg lamb di ko def dans les régions du Sénégal dans le cadre de la décentralisation ma koy bind mu yëg suma làmb même bu génnee këram sax day wax si jaaral suma kër wala naa la fa nit ñu jox ma enveloppe yoo xam ne day jàpp ci lamb yi le président de la République mettre na suñu disposition arène nationale boo xam ne 32 milliards la loolu pour wane ni dans le cadre du PSE jàppale ci lamb ji bu baax pour wan yëg gi am kii la mbër yi monsieur le président de la République excellence Macky si di jaxatee di gërëm di sant mais di gërëm sa soxna bu baax ci liggéey bu mu la jàppale di la wax ni ñoo ngi lay félicité ci ndam li nga xam ni yàlla jox na la ko au premier tour ma lay xamal ni man ci loolu moo waral pour bay sama waar ci loolu moom moo tax may wër à travers le Sénégal di defal njukkal président de la République victoire bi delloo njëkkal la ñuy def ñu tey ji pour sargal ci lii mu am nii ñu jël parrain bi def ko Ahmed Fall Baraya muy kenn ci président de la République di kenn ci Mansour Faye di doomu ndey ki nga xam ne tamit di nijaayam di lépp muy Aminata Gueye di koo xam ne man nag day suma jarbaat ndax Samba Wade di suma xarit umu xayri di kenn ci man man rek la yeb nag wante rek sama jigéen la may Ndeye Fatou Ndiaye ma tuddee ko suma taaw donc man ak moom suñu famille benn lañu moo tax dama ni mu demee ak Mansour donc moo tax man tey dama bëgg monsieur le maire moom li mu defal nii tey ànd ak une forte délégation ñëw ci suñu bis bi ni Sidi ku indi ñëw ci dëkk bi def fi leen li mën na ko defal ku defal Marième Faye mën ko defal ku defal Macky Sall mën nga ko defal ku defal Ndar mën ko defal ku defal population Ndar mën ko defal kon monsieur le maire Sidi man du ma wax le ministre monsieur le maire laay wax Sidi Diakhaté ngi lay gërëm di la sant moom suma xarit la vraiment may wax Sénégal kii vraiment nit la ko xam ne ku baax la ci man. di ma jàppale bu ma demee ba mën réussir yenn mission yi c'est parce que ñu mel ni moom ñu ngi ci son wet ñu mel ni président de la République ñu ngi son wet ku mel ni Marème Faye ñu ngi son wet ku mel ni honorable député Aminata Gueye di suma jigéen ñu ngi son wet Amath Fall Barayo waxaale wu ma ko monsieur Amath Fall Barayo maa ngi lay gërëm di la sant di la ñaanal yàlla mu yokk xéewal geeg sutura si bis bi nga xam da ngaa ñëw parrainel ma ko tey te lépp nga def ko ci bis bi kii nga xam ne tey jii moom Sidi Diakhaté ñëw tey jii ci Ndar ànd ak Sidi Diakhaté production vraiment presse bi yëpp jóg sedd na xol may gërëm sa soxna bu baax di gërëm képp koo xam ne mi ngi nekk doomu ndar mais surtout la wax daal président jërëjëf kontaan naa ci yow yal na yàlla yokk sa xéwal. sant bi dàq sant ci Sénégal fay na la. sama xol sedd na ci waa Ndar. parce que Ndar yàlla dafa ci mbaaxam pare na Ahmed Fall mu nekk suñu frère nekk xaritu Mansour nekk xaritu Mansour Faye ñoo ñëw tey jii dekkalaat làmb bii ndar xam nga loolu cosaan la looloo tax tey ñu àndandoo ak suñuy xarit suñuy mbokk ak suñuy dëkkandoo ñëw wuy si ko pour taaral bés bi. ndeysaan combat ba ngi noonu dox ci diggante ndongo daara ak boy séeréer ndongo daara boy séeréer sunu ndeyjoor boy séeréer toña nan la ilaha illallah Sidi Diakhar def na jaware dimanche yi kenn dootu ko fàtte fi ci stade ma wadde wadde wadde bu oh, la ilaha ndongo daara cokaas ndongo daara cokkaas na booy seereer door na ndongo daara door dara na moom tubb na ko te ñoom fi mu ko àgg na ndongo daara ndongo daara ko daara ko yëg booy seereer ràcc bañ booy seereer ràcc bañ Fallou toppal na loolu ba mu booy seereer ngi door ndongo daara ngi rokos ci suñu saw astafurla sewul ndongo daara ngi rokos ndongo daara ngi rokos waaye booy seereer boo ah boo ndongo daara moo ñëwoon ginnaaw ah waay Sidi Diakhar def ndongo daara boo seereer ndongo daara ndaysaan boo seeree sunu ndeyjoor ndongo daara sunu càmmoñ ndongo daara a yooru ndongo daara a ngi dem Fallou toppal ma ñi boo Boy Seye door na Daara fayu ñoom ñaar Ndongo Daara Boy Seye yor ñoom ñaar oh, lamb ah ndar ndar naka ta lamba gi ndar lamba nga ndar naka ta mbokk yi oh Boy Seye door na Boy Seye door ñoo ngi xoolante ñoom ñaar Ndongo Daara mépp Boy Seye dafa tere record ñoom ñaar Boy Séeréer Ndongo Daaro oh combat bi combat capital la ci ñoom ñaar ci teewaay Ahmed Fall Baraya ci teewaay Massou Faye mer oh Boy Séeréer door na Ndongo Daaro tur na ko Ndongo takk na ko Ndongo Daaro sol na ko biij biij na ko trois biij ah adduna jax àggale na ko Ndongo Daaro daan na ko Ndongo fair play ñu nii lamba ñu na oh ndongo daara daan na ndongo daara daan na daan na jël bu li nga mën a lan la. waaw waaw waaw lii nu mu bëri dara. dama ñëw pour wane sama bopp rek te wane ko ma sama bopp am na ma denc lu bëri di sant ñëpp a di gërëm ñëpp. dañoo gis mu samp xeex nga bàyyi xeex bi daw teg ko baraag a mu tëj. waaw waaw dama xam nga rek bëri naxante ma ko jàppee maa ko ëpp doole mën nañ toog a jëm nii mais suñu jàpp maa ko ëpp doole teg sa bopp. waaw dama bëgg man li ñaan yàlla muy génn dem Dakar di bëri comme sama morom loolu laa bëggal waa Louga ma jàpp xam ne doomu Louga laa xam naa bëgg nekk ma dem fa yegg fa di bëri ak ñoom di indi loolu laa bëgg te ñoo laa ñaan yàlla te naa ni ko def Dakar koo ko morom fa bëri na trop sax sama morom du ma laaj kenn mais sama morom ku ma jox ba bëree pare naa pour ñëpp sama morom ñëpp laa ku ma jox pare naa pour ñëpp incha allah

ak score bo xamni jamais égalé maa ngi wax né équipe bi continuer Masse di liguey di liguey di liguey ma monsieur le maire sou Faye soyez mon interprète je vais dire même soyez notre interprète auprès de son excellence monsieur Macky Sall pour lui transmettre pour lui transmettre nos remerciements, nos encouragements et nos félicitations à l'endroit de M. Fall M. M. bien nous Benou bien bien nous du Yungu. qu'ils soit de nos c'est grâce à la population de leur là. Je veux citer, je vais dire Gettner.

ñoom ñëpp dañoo ànd ak ma li nga jàppoon ba mel nii bu ko ba mel nii bu li nga jàppoon ba mel nii bu ko bàyyee ci jinne la baraay li nga jàppoon ba mel nii bu ko bàyyee ci jinne la baraay li nga jàppoon ba mel nii bu ko bàyyee ci jinne la donc Fallou cinquième combat de la soirée ngi noonu dox ci Robert bu gëndar ak Sa Thiès bu Louga Robert bu gëndar ba pare def sorte délibéré Robert bu gëndar génn na am na avertissement moom la ñu jox Sa Thiès bu Louga Robert bu gëndar ak Sa Thiès bu Louga abi sifle na génn seen diggante ñoom ñaar ndaysaan maa ngi nuyu l'inspecteur des douanes Mohamed Niang ñoom ñaar Robert bu Lug Robert bu Guet Ndar a féete sunu bu Louga féete sunu ndeyjoor ñoom ñaar tey la dimanche 21 avril 2019 fii ci stade Wade Wade bu Ndar le promoteur de la capitale du rail Siri Diakhaté ñu ci teewaay Ahmed Fall Baraya oh Sa Thiès bu Louga a ngi noonu féete sunu ma Lug Robert bu Ndar ndaysaan kurpañ dalagul congo amagul ñoom ñaar Robert bu Gendar Boy Niang do Sa Thiès la ilaha mu doon ko apercule ko mu sigi génn la ilaha illallah Robert bu Gendar tëgg na ko mboot bu Gendar tëgg na ko eh, li gën na jóg lamb ja jeex bu Gendar daan na laa ilaha illallah laa ilaha illallah Robert bu Goundar daan na jël bu rëy oh dem sa waay Korkor doon ko ëpp kii bi bëri waaw Robert daan na jël bu rëy Robert li waaw man champion la ndar fii ku nekk daan naa la na Serigne Touba man ñii aw ma ñu ñii ñii noo tàmbali bëre ba tey bilaay tey dama leen suma daanoon damay teg sama ngëm on a leen demoon ngeen demoon damaa daan man bëri kat laa barke borom Touba dama gis mu daw ko dóor ko épercute takk ci digg tëgg ko mboot mu rëy loolu la ñëpp xam nañ ni moom yàgg yàgg sama tànk la dem si moroom su sama tànk taxaw xaar ko mu ñëw naan su ko mbootee yow am ndax ma dafay day day dem suuf man Ndiaye Saara woo ngi mooy sama maam kon fon forcé na may nekk mbër. waaw gannaaw ba xaar bi rafet na loo xaar ci ñëw Ndakaaru. waaw a jàppale rek. na ba après ñuy teew lu ñu dem Dakar parce que borom Tuubaa ngir Moussa Ndoye dem fa maa ngi gërëm waa Pël Sigi yëpp. ba ne si yëpp maa leen di gërëm amul mënu ma entraîné si tour entraîné waa Gendar yëpp maa leen di gërëm surtout waa Rewande waa Riga bi taal di ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp maa leen ñëpp. waaw laay rek. Ndeysaan Fallou sixième combat de la soirée ngi noonu dox ci Gunaas bu Saint-Louis féete sunu càmmoñ ak Bolo bu Louga sunu ndeyjoor Ndeysaan Bolo bu Louga ak Gunaas bu Saint-Louis. dixième combat de la soirée drapeau Ahmed Fall Braya avec le promoteur de la capitale Birahim Sidi Diakhaté la ilaha illallah Ahmed Fall waa Ndar nee nañ bëgg na Ndar bëgg koo xam ni sax xaaj bi fii la koy lekk seen ndax la bëgg da koy fonk sa cosaan ak sa aada Ahmed Fall Braya ñu ngi lay jaajëfal bu Golo bu Louga ak Gunaas bu bu Saint-Louis Gunaas bu Saint-Louis arbitre bi waxal noonu arbitre boobu sax na suuf gële gi mu ngi wax ñoom ñaar consigne yi si dana génn seen diggante Gunaas dox na dem wuti Golo Golo féere suñu ndeyjoor Gunaas suñu càmmoñ ñoom ñaar ñu nga leewatoo ku fañ dalagul congo amagul Golo eh, aña sa garde bi Bolo yor na tubu tànk Gunaas Bolo jëlee tànk bi tegaat ko Gunaas la ilaha illallah Gunaas remplacé na Gunaas remplacé na la ilaha illallah Bolo ak Gunaas Gunaas a nga ca kawam na ko mboon mu ñëw Bolo tegu na ko mboon mu ñëw oh, Gunaas la ilaha illallah oh xale yi bëri nañu xale yi Gunas bu seneliği ferisini major. Bulondu önesan Dakar'la ñun. Oo komba bu neex. Combat bu neex. Kenn du Siri Diakhaté. kendi du Siri Diakhaté. Kenn du Siri Diakhaté oo bolo gi dóor. Bolo Gunas a ngi fay bolo gi Gunas. Bolo yor na tubb tànk bi. La ilaha illallah. Gunas tëgg na ko mboot. Ñu ànd ñoom ñaar ña ko ca oo ña ko ca suuf.

la ilaha illallah oh astafurlah bulo moo daan gunaas bulo daan na gunaas oh bulo lim daan doy na bulo daan na jëli bu rëy ah, But me. sama liir bu naw di bare Mariama Njaay salaam Njaay Sidi Jaxate Maola Jaxate kaba yeene sama liir bu naw di bare nga ko jox doo ko lekk ay puso lañ koy jàmbam fees suba waxul ma bee xaal suba waxul ma bee xaal xaal bee du xaalu nasar de oh xaal bi du xaalu nasar xaal bu du ñami puso wuy samantay wuy samantay oh xaal bi bulo maadu yaa xaal bi bulo un mbokk yi sànq bulo deux moo bëre waan bulo un moo war a bëre nii wuy sama Fallou xoolal xaal bi di ko xale yi jëm puso ay eh waay Samba xoolal ndaa yi ci géew bi ay eh waay ndaa yi ci géew bi ndaa yi ci géew bi ay eh waay Samba <laughs> neex a neex neex a neex ñetti mërtigo ndar la am ay waa ji respecté règlement yi dafa dem suñu sédal yi yow mbeex yàgguloo eh waay Samba Baranda Fall Baranda ndaa ci géew ndaa ndari jaax nanu boloo jaaxal ndaa yi yow eh waay Samba xaa ndaa yi waay Samba ndax bu Saint-Louis ak bu bu Louga ñoo war a laale fii ci stade Mawade ndax bii lagat la mbaa doo ko toj ndax mbaa doo toj lagat gi yow waay Samba <laughs> bu loo moom pare na bu yàgg taxaw di ko xaar bu loo moom pare na bu yàgg taxaw di ko xaar dégg ko ma nga naan ko yow taxaw rek maa pare. ok euh, euh, a na bu loo ko sànni ndax sama na boo ci ko daa fay dama njubi ndax na ko. Eh, ndax ndax mu dara ak bu Arvind Bhagwan is a ticket and I said, go back to Jigan Bhagwan. I said, Rio Mangini, Jigan Tekki na Fidara Gor Tekki Fidara. Jigan Tekki na Fidara Gor Tekki Fidara. Jigan Tekki na Fidara Gor Tekki Fidara. I said, Levante, Abri, Demi, Dizna, Fidja, Sadma, Wadda, Wadda, Jisani. le promoteur de la capitale du rail Sidi Diakhaté moo ñu fi dajale tey drapeau Ahmed Fall Braya ci teewaay Mansour Faye monsieur le maire ndaysaan Fallou Mbengue laa ci caméra bu TV oh arbitre yaa ngay wax ak ñoom la lamb bëgg ak la bañ waaye kenn du Sidi dekkal ñu cosaan tey ci ndar oh waa ndar amuñu fay fii di tey arbitre da ngay wax ak ñoom ñoom ñaar arbitre arbitre sukol eh, eh, eh. ndax toj na nan ndax moo féete suñu ndeyjoor ngemoo ngemu lu am lu xonk li bu la waxoo bu lu ko ngemoo ngemu lu wax lu féete suñu càmmoñ ñoom ñaar round d'observation kurpoñ dalagul congo amagul eh maa ngi nuyu saa papa Bécaye Mbaye bu baax ñoom ñaar ña ngaa leewatoo eh ndar géej la ñu nekk de dëkk Lamine Koura Gueye dëkkub Serigne Babacar Sy dëkkub Cheikhoul Khadim fa Fallou dootu ma wax ngi leewtoo ña nga leewtoo ndar géej ndax ak buloo dara amagul Fallou ndar nar laa tey ndax eh, daf la trop de eh, buloo door buloo dem na ndax dem na buloo tëru ko buloo tëru ko ndax dam na bëre tëru ko ba ñu sox na sa ngëm la sa ginnaaw luy xaw luy xaw luy xaw oh ndax joxe na wat ndax joxe na wat sol joxe wat ñoom ñaar eh ñaari mbéy yi daa mel ni mbéyu tànk la ni ndaysaan ndax daa takk ba xajam bëloo tamit takk na ba rafet ndaysaan ay la xay la la remplacé na ko mu ñëw ndax li mu def rek na ndax remplacé wu ko takk ca ndigg la oh ndax war na ndomba bu la oh. luy xaw jàpp ca ndomb la bu la futti la bu la ba tey takk na ko ba tey ndax da koo takk kal na ko yëg ko kal na ko yëg xaw jëlaamagul lu xaw lu xaw lu xaw tey leen lu xaw lu xaw Fallou lu xaw Fallou oh ñaari mbër lañu ñaari mbër daga lu xaw lu xaw na ndaf ndànk oh, oh, oh lu xaw lu xaw na ndaf ndànk lu xaw lu xaw jël amul lu xaw jël amul la wax de lu xaw dara amul amul la wax de lu xaw jël am na de amul amul oh dañu tey lu xaw ci lamb ji ah, ah. waaw moo doon at bi dañuy bëriwaat dama leen di woo ñu bëriwaat. lu xaw sama jigéen. kenn ñu ma war a wax. kon dañ leen woo. oh. li doon a war. na leen woo. na leen woo ñu bëriwaat Fallou. oh mbeex daan na. nee na mbeex daan na. nee na mbeex daan na buloo. mbeex daan na buloo. oh mbeex mi mbër la. Mbekh daan na Mbekh daan na Fallou réaction rek bàyyi leen ñëpp. waaw ah, Mbekh daan na jël bu rëy loolu laa di wax. laa ilaaha illallaah. kaay kaay kaay kaay. kaay kaay fa kaay fa. waaw waaw doon Господи! Daa Fallu wure wo den na këng waxi def den na mbaañ taali bagg war na mbaam li waa Ndar doon xaar yëpp ñëw na ñu ngi jaajëfal le promoteur de la capitale di Rassirou Diakhaté ee eh, li mu tëgg non seulement li mu tëgg waaye ki nga ko duppee Ahmed Fall Baraya bu baax mi nee naa leen wut mbooloo jëlul campagne soppil ñi nga àndal ku leen ñeer yi na ñëw Ahmed Fall Baraya bi nga dugg see ca ba xool yi tooy nanu te jëf ji feeñ na grand combat baa ngi noonu war dox ci diggante Bécaye 3 bu Ndar war a laale ak Euro ñaari mbëri Ndar daan nanu ñaari mbëri Louga daan nanu final baa ngi noonu mbokk نسپت رنوان محامبیاں تھا ڈومیا کس والا فری میری من رو کل damaa dugg ci lu ma na ma neex waaye sama monteuse bu jigéen bi Adama oh arbitre sifflé na génn seen diggante ñoom ñaar tey la dimanche 21 avril 2019 fii ci stade Mawade Wade Saint-Louis le promoteur fa dajale drapeau Ahmed Fall Braya ci diggante Bécaye 3 ak Oro bu Bécaye 3 moo ngi moo ngi amul xonk weex li wan ñu ginnaaw oro bu Louga moo tant bopp bi jàkkaarloo ñun ci sunu càmmoñ oo oh, ña ngay lewatoo kurfañ dalagul cong amagul combat de sérieux combat tactique expérience rapidité souplesse la la o oh, ndaysaan Dakar trois nga takk dakk ak ndam oro nga takk dakk ak ndam bu leen fàtte en 1886 la joor nan la ko takkee woon ca tool ba war maam kon daa bokk taarix réew mi waaye a ngi nii dëkk Lamine Koura Gueye dëkk Blaise Diagne ndar géej dëkk Serigne Babacar Sy ndar géej dëkk Serigne Touba bureau nii di ñu dégg oh bakay 3 am na waaye demul orobu lugo tant bopp bi jàkkaarloog moom bakay am na waaye demul ma nga cokkaas Moussa retiendra ñoom oh ku yaay mbër fi ne sa fi toogatul ah ak bu tàggaloo lu xew lu xew nee na dem ca digg géew mais ñii ay mbër yu mag lañu bëgg ma bu la sësalee saako bi na leen bàyyi rek ñu bëre. arbitre suuf la war na gën seen diggante ñoom ñaar cosaani ndar kursu gaal armeeru marmi yaa ngi fii la ne oh Bécaye am nañu na on refait trop le corps déglu ko sérieux ñoom ñaar oh wala yor na tëbb na tànk bi. Dakar rocc rasu oo oh, oro tubb na fi mu jàpp baax na oro buddi na ko oro woo na ko ci boppam buddi ba ci kaw moo arbitre yi ñuy def nii oro tubb na Bécaye 3 Bécaye ngi door ci faar yi da koy buddeem déet Bécaye ngi door bëgg mu bàyyi waaye oro fi mu ko àgg sori na oro koy buddi laa ilaaha illallaah tëral na ko moo suboo ko arbitre yi Euro daan na Bécaye 3 jël bu rëy Euro daan na Bécaye 3 jël bu damay dem damay damay dem ca ñoom Euro daan na Bécaye jël bu rëy Euro li nga bëre na oro li nga bëre décroche décroche lépp dina baax sa lu ndar benn la lépp baax la oro oro bala ñoo dem rek looy wax waa Louga li wax nañ ñu ngi ñëw. ndeysaan oro li nga bëre wax ñu ko wax ñu li nga bëre. ñu ngi déglu waaw li yàlla rek. parce que rafet daal ñu ngi sant ñëpp daal. waaw dañoo gis nga takk ko ak ko fu sori xatal bi rek mu tëdd. waaw lamb la rek. lamb la rek. li foogoon laaw li foogoon la muy amul rek. léegi foo jëm. maa ngi maa ngi ne rek. fépp fu fu lamb fu ma lamb woore mu ñëw. a jërëjëf mbokk téléspectateurs yi gis ngeen ko noonu Paul daan na Bécaye 3 jël bu ñu nekkoon fii ci Ndar Géej dëkk Golbert Diagne waaye tamit ñu nekkoon dëkku Serigne Babacar Sy ak El Hadj Malick ak Serigne Touba mbokk yi làmb jeex na ci jàmm ba tàkkul jaasi gëñul mbaram kenn xooxatul kenn ndax ndara mel noonu waaye tamit ku tuddee woon drapeau moo noonu seen soppe sekk ndaanaan am na fal mbeng ñëw Ndar Géej fiche assentement assainissement wad Wade li fi tukki lepp ñu wasaare ko ñepp gis ko waye mbokk yi kenn du Sidi Diakhaté le promoteur de la capitale du rail kenn mom bu la nga Thiès mo fa man bu demé Dakar mo fa man bu demé Kaolack mo fa man te tàndoor ge ñepp nenañ gongo kon nag Sidi gàcce ngalaama kenn yow le PDG pap Doumbia jëf ji rëy mu ngo liggéey gi feeñ exploit bi feeñ yalla yalla fay la wa l'inspecteur de douane mohammed ñaw kenn mom Papa Diop ca France Soore Fall Tam Fall Canada waaye Mbasu Mbasu Fall yàlla yàlla dëgër la yàlla yàlla fay la Serigne sama xarit kenn du yow gërëm naa baax na Fallou Mbengue sama cameraman Adama Seck kenn du yow bye bye làmb jeex na Fallou lu lépp Thiès làmb jeex na bye bye. Orange Bordeaux a Omar bu ko takkee laa bu da ko mën tene ñoom ñaar Anton kal na ko yëg ko maa du la a Anton kal bi daa sori da la tëgg boon bu daanu door bu daanu door bu daanu door bu daanu ay waay Samba